monsieur le ministre da nga nekk ki nga xamante ne dafay xelal euh, njiitu parti réew mi euh, ñu gis mu génnewaat beneen mu def beneen sortie on attendait même la conférence de presse qui devait tenir lundi bee ñu génn c'est-à-dire semaine bee passée euh, finalement lu lu xew ba am ba amuloo leen seen conférence de presse. Hmm, daañu laaj mbott nag génnam li gars yi ñu wax ci olof laaj mbott génnam <laughs> du neex a wax li ma la mën a wax daal ci loolu mooy. Euh, président sa Seck bu dee ci moom nga bëgg ma wax ci moom homme d'état la homme d'état nag du wax lépp dañ koy reproché d'ailleurs moom du wax dara nit ñi ci kàddoom bala moo li ñu naan mbir ma ca benn baat ba su waxee ren balaa waxaat déwén xam naa ne loolu bokk na ci ay jikko bariwul wax waaye su farata jotee rek dina wax te bu waxee doon te lu am njariñ xam naa ko ci moom su ma naw la ko damay wax li yàlla te yàlla tax homme d'état la mooy waral léeg-léeg nga jël benn décision war ko def dem ba ci biir am événement yu xew nga war a arrière amul ragalul pour loolu mun nañ dem ba ñu jub saal bi sax mu am lu xew lu tax mu ne saal bi du ci àgg. lu xew mu retourné dem defi leneen et lii xew lii xew bari na événement yi tegaloo na néew ma nag moo tax mu changé conférence de presse bi mais booy xool ni réew mi doxee ak événement yi am ak fag yi ak trouble yi am yokk xar mi xaraw. xar mi karaw jaru ko day am fu réew toll foo xamante ne ànd ak dal ne tekk li Sëñ Fall daan wax ne tekk bu mu leer nga soo a def li nga war a def parce que xam ne la nga doon def yaa ko xam man naa boo ko defee mu indi wàññeen ci liy xew mbaa mu yokk ci liy xew dara loo xam ne du njariñ moom moo koy xam na xam nga da ngay am ay fiches de renseignement mhm. muy président de la république muy président conseil muy président institution yi saa soo xëyee da ngay am ay fiches de renseignement da ngay am ay la information ne xañ na moom nga ko defee dina indi yàq nga bàyyi néew ma loolu dama ne yu mel noonu mën nay waral léeg-léeg homme d'état parce que homme d'état neexul def leen teel ñi xamul nag dinañ ko tuddee ñu ne lii moo tax lii ku nekk di wax am na sax benn télé bu nit toog dégg naa naan Idriss Seck lii la naroon wax xam nga loolu mooy nekk na si géntu morom pour yow lan la naroon wax non non li mu naroon wax moom bu ci àggee dina ko wax du ma ko wax fii mais dina ko wax bu soobee yàlla dara du ci fa du ci tàppe alors ñu bëri sànq yaa ngi naan bu waree wax dina wax lan lay xaar une déclaration claire nette limpide du chef de l'État Macky Sall ou bien. bis bu rafet lay xaar. pour yow mooy bis bu rafet. junj na avec nos confrères de l'Express dafa jooy dina ko mu ne def dañ maa wax dañ maa wax wax te ko dañ maa wax te weesu. Mhm. incha allahu rabbi li ñu ñor mooy réew mi ndax réew mi suñuy maam ñoo ko liggéey. boo xoolee deux cent ans ci ginnaaw maam yee fi newoon ñi mën ci wàllu baatin ànd ak Serigne Touba ñi ànd ak maam Mamoulaye ñi ànd ak Seydi Hadji Malick ñi ànd ak Baye Niass ñi ànd ak ku nekk ànd ak nga àndal ci wàllu baatin ba baatin taxaw fi nekk réew jullit réewu lislaam loolu nga fi dox ba tey ñooñu ñëpp seeni doom seeni i sëpp ñu ngi fi ci réew mi ñi seen maam mën na ci wàllu saayir àddina ñi laxasaayu ànd ak alburu bi doon pende jéem ñi laxasaayu ànd ak Lat Joor wala Lat ànd ak maam maa ba jox ko suma maam ñi ak ñeneen ba xeex ak tubaab ba dem bàyyi ñu ko réew mi ne fi ba tey ci stabilité ci dal ñu mën a jokkal waxtaan di disoo doon benn nekk une nation loolu nag du ay caaxaan duñ ko bàyyi ñu fala fala ko comme ça ñaari fan parce que diw bëgg naa nekk nàngam am na ambition nangam tey ma tas réew mi tey ma taal réew mi du noonu looloo tax ñun ñi nekk yàlla may chance sénégal yi jiitaloon te ba tey sax teg ñu bët dañu déglu lu ñuy def lu ñuy wax dañ ko war a seet dañ ne looy dugg na nga ko xool te bul ragalal laajte waaye dégg teelu ni dàmm na tug fëgg dënd ne mën a jox lañ ma réew mi mbaam la yëngal gaal gi comme comme dina chanteur yooyu dañ ko war di moytu te bala moo wax dara da ko war a saytu ba xam li ñuy wax lan la. sa wax ci ci kan lay adressé wu. Idrissa ci ñëpp nan sama bopp laa ci jiital Idrissa noonu lay doxee ba bëgg a comprendre lu tax mu waroon def lii deful lii loolu laa lay expliqué ne la teel teel rek comme ça. mais wax na états il a encore réédité. Ré non états déclaration officielle. mais il dit qu'il est contre un troisième mandat. mais non Idriss Seck est contre un troisième mandat. il est il il il, il est contre un troisième mandat du temps de Wade. il l'est en ce moment et il le sera demain qu'il soit parce que loolu charte libérale alors charte libérale mooy. Mhm. boo nekkee ci am réew respecter constitution réew bi sauf cas de force majeure ça peut arriver sauf cas de